amiin asalaamaaleykum mbokk taaliba yi mbokk jullit yi ah ñuy siyaara Cheikh Mountakha xalif général Mouride ci màggaayam ak teddaayam nekkaayam suñu borom yàggal ko fi lool te mu wér liggéey yi mu nal liggéeyal maamam Serigne Touba mu am ci ndam yàgg fi ba rappal ko ba sumb yeneen liggéey yu bees ah ñun ñi xam ne njabootam lañu di ay taalibe dëkke Touba di liggéey ci fariñ tey jii ñoo dajaloo ci bésu feet gi nga xam dañ ko jagleel liggéeykat yi ñuy de feetu ah di ci waxaale suñuy bëgg-bëgg di ci nimat suñuy coono di ci ñaan dimbal kenn nga moo yor réew mi te war a loolu ñu ay xale lañu ay citoyens sénégalais lañu yoo xam ne am nañu devoir ah, seen droit mooy ñu restructurer leen ko delloo leen seen i droit li leen koy delloo mooy ñoom ñu ngi jéem a def seen devoir dem nañ ci préfet jox nañ ko mémorandum première mais li ñu ci jublu mooy ñu xàmmee leen xam leen fullaal li ñu yor ndax moo yi nekk Sénégal naan juróom-ñaari moo di liggéey ay milliards milliards yooyu dafa bokk ci doxal réew mi te réew mi li koy doxal borom mburu yooyu ci la ñu bokk ndax lu mënee liggéey ci farine borom mburu yi ñoo ko defaat farine transformé ko jox ko population bi kon ñoom am nañ impact ci population bi am nañ solo ci population bi ñu war leen xàmmee jox leen seen gëdd gëdd gi fi mu tàmbalee mooy reconnaissance reconnaissance mooy nit ki ñu jox ko li mu ak ak ak yelleefam liggéeykat bu nekk dafa am noppalu liggéeykat bu nekk war na dem ba jëm mag am lu ñuy tuddee retraite kon nag lii buñ ko waajalul defar ko li dal mag ñi fi jaaroon moo leen di dal te ñoom loolu la ñuy bañ mu dal leen ba ñu bëgg organiser wu association des boulangers de tuba Xadim loo jiite ko ñun ñu nekk encadreur yi nekk ci seen biir di leen jàppale ndax yor nañu ay four te loolu ñuy def ñun waroon nañ ko def kon yey nañ ñu tey yey gi ñu yey mooy li ñu waroon def ñoom ñu jëkkee ko soñu ñu si kon sawar nañ pour jàppale leen ñu yor four yi tamit nañu préparé wu ah, xool cet gi ndax lekk cet daf ci am solo ñoom ñiy liggéey tamit ñu ngi jéem nañ leen jéemle buur ñëw taxaw seen wet jàppale leen leen buur di gën a jàppale moo ñu régulariser situation bi ñu nekk situation mooy branche boulangerie xale yi nañ leen xool seen métier qualifié ku ko def ko war nga am certification de qualification ñu xam ne yow kayit wi nga yor mooy wane ne métier bi mën nga ko mën nga ko koy mën tamit ñu xool li ci ak ak sa yelleef ndax ñëpp ñu bokk pay ñëpp ñu bokk lu ñu am ci xaalis ku nekk nag bu ñu la jàngalee métier ba nga mën ko ñu certifié la ci certificat de xam sa niveau capacité ci lañ la mën a embaucher ñu mën laa jox dara defar gi nag du ñu xëy xëy na embauchement fi ñuy commencé mooy xale yi danañ leen dajale xool seen métier saytu ko yokk seen xam-xam defal leen ay këyit képp ku yor fuur war leen a jël nga jël leen ci ay këyit di leen fay seen ak seen yelleef borom bitigu mbagg boo gis magasin moo ne ci xelam ambulancier boo gis muy jàng métier bu sañoon suuf mu am fuur kon nag li may fuur mooy ñu jël mbir mi teg ko si yoon kon ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ah man maam maam Thierno wan président multi promo international waaw man dama yor boulangerie lii ñaxtu ànd naa ci ndax 2008 euh, 2008 euh, bi toolu américain yi yàqoo farine bi yokku na ba vingt et un mille francs ma koy jënd vingt et un mille di liggéey mburu mi fanweeri dërëm kon bu ñu demee ba jamono bii ñu bëgg nañ yokk mburu bi ndax nangam ndax treize mille douze mille loolu teguñu ko fenn ñu di wax loolu seen bopp la ñu nekkal man li xale yi def nii ànd naa ci maay jëkk a déclaré wu fisc yi ma war a fay yëpp ma fay ko li ma war a jox état ma jox ko ndax nit ku patriote ku bëgg dëkkam ak ak yelleef da koy fay réewam taxes yi muy pour l' argent contribuable de l' état ah c' est les man d' accord naa mobiliser li ma war a fay lépp ma fay ko pour état am lu mu am continuité ci xale yi war a nekk suba Sénégal ndax gone yi ñooy màgg ëllëg suba mag ñi dañuy dem gone yi dañuy ñëw kon yàlla yàlla def jàmm yàlla na jaar yoon. man la Alpha Kobar porte parole association boulanger Touba maa ngi nuyu. monsieur le sous-préfet ak monsieur l'inspecteur du travail ñu ngi koy wax ne am nañu plaisir présenter ko sunu mémorandum fii boulanger Touba yëpp association boulanger Touba yi Touba ñoo ngi koy déclarer seen doléance di ko wax situation ñuy dund di ko wax situation yi ñuy dund boulanger yi Touba Mbacké yi ñoom dañu constaté que 1971 ba léegi am na 218 fours yu fi nekk fii biir Touba suñu xoolee nekk na ci 2000 ouvriers yoo xam ne ñoo ngi fiy liggéey mais conditions yi ñuy liggéeyee baaxul ndax amuñu embauchement amuñu contrat amuñu bulletin de salaire amuñu caisse sécurité sociale amuñu congé amuñu repos kenn versé lu leen IPRES ñu wax nag préfet mu waxal ñu état mu mu mu xool conditions yi travailleurs yi boulanger Touba yi di dundu mu régler situation bi ndax conditions yi kenn déclaré wul établissement bu boulanger yi dëkkee te liggéey ñu qualité amul hygiène mais ouvrier yi ñu ngi koy wax ne ko mu waxal ñu état mu defal ñu formation professionnelle boole ci ak loo xam ne finance dimbali ñu ci finance ak ay projet yoo xam ne ñoo ngi koy dénk état ñu ngi jëfal monsieur sous préfet bi ñu fi fekk muy Mamour Diallo di rafetlu recevoir bi ñu Mansour Diallo di rafetlu recevoir bi mu ñu recevoir fii ci tubaa ñoo ngi sant la xalifa général sëriñ Mountakha Mbacké et le porte-parole sëriñ Bass Abdou Khadre Mbacké bésu ñëpp la premier mai àdduna wërngal këpp ñu ngi koy feete ñu ngi koy rafet lu xaar ba bés bi ngeen ñëw def si organiser wu ah ngeen ñëw jébbal ma seen mémorandum bi muy doon li nga xamante ni bi taataan ngeen si lépp li nga xamante ni bi ay ay ay ay manquement la n'est-ce pas ay ay ay ay wareef yi nga xamante ni bi yu war warlu ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo leen war a euh, ñoo leen embauché te euh, wax dëgg yàlla euh, jaarul yoon ba léegi te depuis 1971 ni ngeen ko waxee Touba fi mu toll nekk na si deux cent et quelques boulangeries fii si dëkk bi yéen ngeen nekk mbooloo di liggéey foofu wax dëgg ay deux mil ouvriers di liggéey si boulangerie yooyu wax dëgg yàlla war ngeen leen war ngeen organiser wu laaj tamit seen i sañ-sañ te loolu yaakaar naa ni daañu leen si jàppale organiser leen ngeen ba ngeen am sañ-sañ yi nga xam ne moom ngeen moom ngeen yelloo ndaxte doomu Sénégalais ngeen yéen a liggéey si mburu te mburu nag wax dëgg yàlla séeréer si moom bëgg nañ ko lool lool lool lool. daañu leen sa jàppale bu soobee yàlla ba nga xamee ni bi daal seen liggéey dina gën a mën a baax ngeen mën di liggéey di am repos ngeen di liggéey tamit di ñu leen di couper si presse ndaxte ëllëg lu mot a séddale ndax dafay ñëw nit kuy liggéey dinay feebar nit kuy liggéey tamit euh, dinay soxla tamit euh, day dem ba màggat noppalu tamit te loolu tamit war na am as tuut li nga xam ne bi bu mu doon liggéey mu ngi ko doon cotiser ñu koy mën di ko dampé donc li ngeen wax lépp wax dëgg yàlla seen seen wareef lu lu leen war la te daañ si taxaw bu soobee yàlla waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a waxtaanal leen kayit yi ba ñu mën a organiser liggéey bi nga xamante ne bi mooy boulangerie yi fii si Touba nu ñuy liggéey jërë ngeen jëf wasalaam